nañu ne jëmmi nañ façon manifestation bu nekk ngir génnee seen mécontentement par rapport ak situation réew mi gis nañ ne permettre leen leen permettre leen leen ko mayuñu leen ko aussi ndax saa yu ñu wootee rassemblement ñu dakkal leen ko saa yu ñu aussi tamit wootee réunion ñu empêcher leen ko barricade seen lieu yi nga xam ne foofu lañ koy defee ñu gis ne dañoo génnee benn phénomène le fait que si nawetaan yi ate lépp loo xam ne xew na di am rassemblement dañuy nekk euh, di di di jubilé di wax ay Sonko namoon nañ la mu doon phénomène boo xam ne gis nañ ko euh, ci li nga xam ne fépp foo tourné rek da koy daal di gis ne démb sax euh, gis nañu bi président de la république bi muy ñib si fële ci Touba gisoon nañu ko ne euh, gars yi dañ doon ko gàttandu at li nga xam ne rek moom mooy ay woyu Ousmane Sonko tey noo jàngatee mbir moom. dafa dañ ko Ablaye Wade Ablaye Wade bi mu daanoo fii quelques moments après loolu lañu dégg ñëpp la Ablaye Wade maam ñëwul lu nekk fal moon wax bu ne dañoo fort trop ci ay manipulation mais loolu loolu loolu génne. foofu kon na ngaa jàpp ne manipulation la forme de manipulation de la de l' opinion des populations. mais dans tous les cas ki dañ ko àtte ba tëj ko ku ñu àtte ba tëj ko yaay deux choses. Mhm. xam nga le procès commence bañ ko bañ la convoqué. ça finit suñ demee ba conseil ba conseil euh, kii ba cour suprême. cour suprême su prononcé woo affaire u àtte jeex na su boobaa nag président mooy def grâce wala ñoo la. amnistie président wala assemblée nationale. donc fi mu toll nii Ousmane Sonko dañ ko tëj. la ko fay génne du ñaawlaate du manipuler population bi na gars yi wax lu leen neex. ah kon dañuy ñaawlaate dañuy ñaawlaate non c'est fini ay manipulation loolu amul benn njëriñ mënta am benn incident parce que Ousmane moom jeexal na. su gars yi buggee dañuy wuti keneen ñu dem jàpp ci waaye fu ñu nekk rek nan nañuy wax. lu leen neex nañ ko def. parce que Ousmane Sonko nag moo nekk ci xew xolu sénégalais yi de. waaw d'accord mais monsieur le ministre est-ce que du ngeen nangu loolu. nekkoon na sax ci xolu ay sénégalais yu bëri man nangu naa la man nangul naa ko. waaye da ba tey ba tey mi ngi ci xolu sénégalais yi nu mu ko yàqee. nga xale bu réew car saa ngi mag dañ ko daan lépp mag ñi pour pour xale yi ñun lépp ñu daan léebal. Hmm. pour xale yi seen bopp. Hmm. ñu won leen résultat wu en cheminement ku yaru ak cheminement wu koo xam dafa réew du dégg ndigal lu ko neex mu def koo nga xam ne nag moom du dégg ndigal dañ ko daan wër fekk les res ci àll bi moo tax ñu ne ku doon seet diw carsaa ngi dégg nga donc donc Ousmane Sonko. c'est ça ban ban léeb la ku ma am ndey ku ma amul ndey. waaw yooyu yëpp ci la nekk c'est-à-dire Ousmane Sonko amoon na possibilité sax jël réew mi nit ñi toppoon na ko. Hmm. mais il a géré. Hmm. donc passion xolam moom la jiital. ba perte yëpp ak itam xol bi mooy xol bi parce que xol bi moo tax mu dem dem fu mu waroon fu mu waroon dem parce que waroon naa xam ne am na foo xam ne soo fa demee am na loolu fa war a fekk mhm. donc moom mu def ko ak di wax wax joo xam ne gémmiñam e, e, gën ko sànq ak di poussé gars yi ñuy lakk ak reyante yooyu loolu yëpp moom moo ko topp na mënoon na am lu bari ci Sénégal mais yàq na lépp yow daal monsieur le ministre man bu ma la déggee mooy sa xol daal Ousmane Sonko nekku ci garaawul waaye kon xol moo ci yow sa xol Ousmane Sonko ñu nekk. malheureusement nag journaliste yu bëree bëree bëri nag euh, seen xol man daal xam nga Sénégal seen maa ngi Sénégal ka lañ gën a bëgg. c'est-à-dire que xam ne ma sono toog ak ñoom wax ak ñoom moom lañ gën a bëgg. mi ngi leen ah mais mais Ousmane Sonko mi ngi doon wax ak ñun mi ngi doon toog ak ah, ñun mi ngi doon wax ak ñun nag monsieur le ministre loolu moom Ousmane Sonko mi ngi doon ko def saa yu def génne def sortie journaliste yi yëpp ñëw fekk si ko Ousmane Sonko ñaar ngeen koy gis mu wax ngeen ko dem mu wax waaye xanaa euh, waaye moom ci boppam mu jóg. Hmm. kenn invité ko kan ñaata journaliste ñoo ko mos invité mu wax. amul ah, amul ban journaliste moo ko mos a euh, jox micro amul. parce que moom dafa woon na ne am na doole yoo xam ne lu mu bëgg ci réew mi da koy am beew boobu nag moom moo ko yóbbee lii yàlla bëggul ku beew. d'accord waaw yéen wax ji yëpp. wax ji yëpp Ousmane Sonko la fi mu toll. man d' accord monsieur le ministre waaw d' ñu génn cadre Ousmane Sonko ñu génn ñu génn ñu wax mu ñëw. d' accord mënut a wax ba rectifier l' histoire. d' accord monsieur le ministre histoire pare mënut leen ko rectifier. d' a waxee leneen. d' accord monsieur le ministre ñu génn ñu. fan la ñuy jëm. Mhm. nu ñu def ba ñu bokk ci le pays les plus émergents. Mhm. nu ñuy def bokk ci BRICS yi. nuy après président Macky Sall alors nu ñuy exploité li nga xam ne mooy ñëw mooy diamant beeg or beeg pétrole beeg gaz mais loolu loolu balaa muy am loolu balaa muy am démocratie il faut mu am ci réew mi il faut que ñu instauré ko fi waaye itam liberté. liberté aussi tamit. liberté aussi liberté de la parole donnée aussi tamit mun nañ réussir ko ba teg ko. léegi li ci moom mooy lépp tuur fu mu toll mbir yi dafa ëpp dafa tuur gis nga rajo yeeg télévision yi y un mois avant le président Abdoulaye Wade y avait fi nekkoon. ak mhm. Sud ak yooyu ak télévision nationale. léegi dem nañ ba kenn ku nekk am nañ am na télévision rajo ku nekk. loolu la ñuy ñaan yàlla. dafa ëpp dafa tuuru. loolu émergence la ñaan yàlla léegi nag xam nga li des. dañoo war a am comme li ko président Ablaye wax un despote éclairé président moo xam ne soo ñëwee jiite Sénégal da ngay taxaw takk sa tubéy mu dëgër. Mhm. ah gars ku nekkul ci yoon nga indiwaat ko ci yoon. Mhm. quand il faut faire régner l'ordre. nga feeñee l'ordre Ousmane Sonko loolu la bëggoon a def. ngeen ngeen xañ ko ko loolu la bëggoon def ngeen xañ ko ko. xam <laughs> d' accord ñu jeexalee ko jamono ji at présidentielle bi nga xam ne moom lañ jëm à six mois des élections présidentielles euh, toujours le président de la république ba tey euh, àdduwul ci candidature bi mais gis nañu que ne benn Bokk Yaakaar jamono ji euh, ku nekk mi ngi dem sa boor ndaxte jàpp nañ ne ku nekk moom candidat la war a doon ndaxte ñoom xaaruñu benn yoon le président de la république daal di choisir candidat bëri na ñoom Mame Boye Diao Mame Boye Diao. xam nga gis nga fi mu toll nii. nous avons un parti vivant. ay ñoom Abdoulaye Diouf Sarr. ay ñeneen ak ñeneen ñoom ñëpp ku nekk jamono ji ne nga candidat nga. pas compris mhm. moom moo woote ne képp koo xam ne da ngaa bëgg ñëw ñun ñun on s'est réunis d'abord au niveau de Benno. Mhm. on a dit président yow on on te fait confiance ndax xam nañ ne am nga vision am nga philosophie am nga œuvre am nga liggéey am nga loo bëggal Sénégal ëllëg. donc compte tenu de tout ça dañ la bàyyi yow nga choisir président dem laal ne man rafetlu naa li ngeen wax yooyu yëpp mais léegi damaa bëgg nag yéen itam ci seen biir ku bëgg a nekk candidat na ne man maa bëgg a nekk candidat gars yi bëgg a nekk candidat ñoom ay ñoom maam booy jaaw ñi nga tudd ñëpp présenté wu donc c'est tout à fait normal et hmm. léegi nag président aussi am na yoon may na ko mu mu dem ba ba ñuy présenté candidature yi ah ñu ne diw moom mooy président donc président tam mi ngi ci yoonam fi mu toll nii. Euh, kenn mënu koo contraindre ne ko tey nga wax président xam na ki nga xam ne moom la jàpp. donc tey euh, président bu bu bu choisiroon candidat boo xam ne tamit arrangé wu leen même da ngeen di da ngeen di ànd ak moom. waaw. Hmm. su ko su ko defee parce que xam nga l'union fait la force. président mënta choisir benn parti benn candidat boo xam ne. Hmm. day am unanimité munu ko mënu ko yàlla sax munu ko yàlla yàlla sax man na ko mais du ko def yàlla sax mën na ko mais du ko def. Hmm. doo doo même le prophète Euh, bi nga xamee ne jël na ko prophète am na des faux prophètes yoo xam ne dañoo génn fële ne prophète lañ ko moom donc kenn mënut a indi koo xam ne ñëpp dañuy ànd ci yow waaye mën nga indi koo xam ne ñu bëri dañuy ànd ci yow su ko defee ñeneen ñi nga waxtaan ak ñoom daal leen indiwaat su ko defee nga wuti waat ñeneen ñoo xam ne dañuy ci loolu la président ci président nekk. mais président moom mënta fexe fexe ba génne koo xam ne ñëpp ànd mooy c'est pas possible. mais est-ce que président aussi tamit préparé woon na par rapport at ki koy remplacer ndaxte le fait que mu ne du doon candidat ñëpp jàppoon ne euh, mbir moomu lee daka def parce que pression bi gisoon nañ ne pression euh, sénégalais yi at liñ doon ko wax ne no la troisième candidature moo tax mu précipité wax que ne du doon euh, troisième du def troisième mandat sans mu préparé benn dauphin boo xam ne moom lay. à teg à la tête de Benno Bokk Yaakaar. ay at na wax président maanaam bi yëpp. Hmm. na wax ndax day bokk wala du bokk loolu moom xam ngeen. Hmm. kon nag bu leen ne da koo yéex a wax. yéex a wax lan. kenn du doon candidat hmm. kon bu leen ne da koo teel a wax teelu koo wax. ndax yéen ñëpp doon topp naan ko président. waaw teelu ko wax mais mais bi mu koy bi mu koy wax munoon na ci euh, déclarer kan mooy doon. Euh, candidat bi réer réer réer réer bi ngeen. day day day bañ euh, maanaam benn mbokk yaakaar daal di tasaaro réer bi ngeen amoon yaakaar ne malgré li mu bindoon li mu waxoon li mu wax 2019. Mhm. ne moom du nekk candidat que day nekk candidat réer boobu ba léegi moo nekk nii. Mhm. président xam na kan mooy candidat bi xam na ko bu yàgg. Mhm. mais il fait vivre le parti parce que fi mu toll nii depuis deux mois ngi nii parti bi ñu ngi dund ñoom yeneen parti yaa ngi toog di xaar kan mooy nekk candidat. ñoom ci seen biir fi mu gaa yaa ngi dund gaa yaa ngi wax ah, kenn ku nekk yaa ngi seeti sa morom. Mm-hmm. naan kan moo war a nekk candidat man tey rek moo demee suñu dëkk fan yii rek. Mm-hmm. ñu bëri dañ may inter ah ñu ne ñun ngi liggéey ñu ngi toog ñi ngi waxtaan heure boo di xa déglu président. ku président wax rek moom lañuy àndal. Mm-hmm. mais tout le reste là fii ci biir Dakar rek mais àll ba ñoom ah a ngi toog di xaar donc combat moom. c'est le littoral. Dakar ak Saint-Louis ak Thiès Ziguinchor la wax gi nekk. mais soo duggee ci biir euh, euh, réew mi. Mm-hmm. foo wax jàmm fii nag moom moom wax lañ moomee. donc yow ñu bàyyi leen wax waaye président bi. moom mm-hmm. xam na kan mooy nekk candidat bi yéen kay yéen xamagul. d'accord de de de gis nañ démb que président de la république bi muy dem euh, fi nga xam ne moom mooy Touba gisuñu ko ci wetam. non président dafa bëgg a wu. Mm-hmm. ba ñëpp xam ne moom nekkul ni diw diw la diw la su fekkoon dafa ànd ak Amadou Ba di dem ak di ñëw wala mu woo keneen ànd ak moom dañ naan kii la mooy ñi moom ñoom ñëpp dañ leen faa teg soo ko seetloo depuis président am na yoo xam ne ci dem moom rek moom mooy dem su ko ñoom ñëpp ñu xaar mais parce que en tant que premier ministre gaaw dem ak fekk leen ak président Abdoulaye daawul ànd ak kenn daawul ànd premier ministre ah. président mm. daan dem yoonam daan yónni ministre de l'intérieur mu nekk fa mu demal boppam après premier ministre bi moom daaw lu ñëw fii lañ ko daan bàyyi dégg nga donc noonu la mm. yàlla a le partage euh, des pouvoirs dafa am partage kenn ku dafa am loo loo war a def donc même su fekkoon ne actuellement alors ah, amoo euh, président désigné woon na kenn mën nañu mm. mën na bañ a ànd ak moom parce que président nee na moom fii ak le 2 avril mm-hmm. nee na moom day liggéey liggéeyam mooy sécuriser Sénégal yi liggéeyam mooy eggale projet yi liggéeyam moom mooy préparer euh, alors ëllëg alors Sénégal fi mu jëm Mm-hmm. donc je crois que chemin wu président moom leer na mais nit ñi nag li lay intéressé mooy demale ak fekk ren yow soo jëloon sax eh, di dem marché nii day am ñu toog seen buntu kër da romb leen kii xam naa ne ceebu jën lay toog kii kii da xolal ku dem leen dog morceau yàpp la ñu ku dem ay waay benn óoba la def ci géej ñooñu wala benn non xam Sénégal yi ñoom ñoo moomul seen bopp Sénégal yi ñoo kenn ku nekk yow da ngay sol sa bu tey mm-hmm. ñu ne yee eh, xoolal kii te dafa naay rob bu rafet dem bii mm-hmm. am na fu muy jaar ne kii Sénégal moo mel noonu Sénégal moom duñu bàyyi dara ñu bàyyi dara duñu bàyyi dara mu sedd mooy que ne ñaan rek yal nañu yàlla baal rek ci bàkkaar yi nga xam ne ci xel yee wax yee ak dugg ci loo xam ne suñu yoon